bi dëgg neexul yow nee naa la munoo ñàkk ci sama cinq semaines mënul am <laughs> sama présidente staff borom établissement bokk jom yaayu maam jaar ak Moustapha ak Ndey Xadi madame Dramé Kandji Socé sama xarit bi sama mag ji baax ci man bëgg ma fonk ma su ma ko waxee rek ñëpp xam nañ ne soxna Ndour yow laay waxal xoro boobu bàgg bu jongo ma ci man boobu chaîne ensemble chaîne bu ne muut ci man jaarooy wàcc ñëpp di ma laaj lii lan la <laughs> ma ne leen soxna Ndour yow ma solu rek nga ñàkk ci mënul nekk barke yonent yàlla Mouhamed Ndoura Waari Mbergaan xale bi ndeyam gërëm baayam gërëm famiyam gërëm ay bokkam gërëm ay xaritam gërëm ay nawleem gërëm kenn du yow sama président staff maa la bëgg maa lu ma ci góobee gàll ko Ndoura Waari Mbergaan nii laa def tey dëgg neexul ci yonent bi dëgg neexul yow nee naa la mënoo ñàkk ci sama cinq semaines mënul am <laughs> sama président staff borom établissement bokk jom yaayu maam jaar ak Moustapha ak man Khady drame Dramé Kandji Socé sama xarit bi sama mag ji baax ci man bëgg ma fonk ma su ma ko waxee rek ñëpp xam nañ ne soxna Ndour yow laay waxal xoro boobu bàgg bu jongo ma ci man boobu chaîne ensemble chaîne bu ne muur ci man jaaro jaarooy wàcc ñëpp di ma laaj lii lan la ma ne leen soxla nduur rek nañu arrêté yow ma solu rek nga ñàkk ci mënul nekk barke yonent yàlla Muhammad Ndoura mber Mbergane xale bi ndeyam gërëm baayam gërëm famiyam gërëm ay bokkam gërëm ay xaritam gërëm ay nawleem gërëm kenn du sama président staff maa la bëgg maa teel lu ma ci góobe gàll ko Ndoura Wally Mbergane nii laa def tey dëgg neexul